aouzu billahi bismillahi inna waliya llahi wa ma tawfiqi illa billah barke borom tuba salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki julli di mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu jiitalee sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant Serigne Touba di ñaanal Serigne Mouhamadul Mountakha suñu borom yàggal ko fi te yàlla wéral ko ñaan suñu borom dolli ko kàttan ba yéen a jëm am ci liggéeyal borom Touba lépp mën ko matale di ko ñaanal mboolem julli di ak taalibe yi ñu ngi siyaare waa daayira Chifa Usudur Euh, di jël siar bi di ko teg ci loxom jawrin sëñ modou Caare mi nga xamni moy jawrin ji mo tagal ci loxom mbooleem goor ñi nga xamni ño nek ci daayira sifa usudor bépp ak mbooleem bànqaasam yi nga xamni ño sokk ko ci sifa usudor bu Touba mo xamni nek Jurbel wala Thiès wala dakar, wala bitim rew ci siyaare it walu soxna ji di ko teg ci loxom soxna mam Jaara geey tay si rancir soxna Fatija mo Fatihul Bisri ñu tagal ci loxom mbooleem soxna yi ñu ngi sant yalla bu baax ci tawfiix ji nu suñu borom defal ba ñu fekkwaat waxtu bi di sant yàlla yit ci ndimbali nu sëriñ bi defal ba liggéeyu sëñ Tuubaa yi ñu bokk ci ñi nga xam ni ñu ngi ñu ñu ngi ñu ciy tudd muy lu am solo di ñaan yàlla daa daayira bi doxin bi nga xam ne moom lay doxe nga xam ni léppam sëriñ bi la nga xam ne day tàmbalee bi rek jam ci sëriñ bi te di waxtaane li gën a kawe ci liggéeyu sëñ bi muy xasiide yi nga xam ne ginnaaw yàlla moo moo lëkkale daayira Chifaa Suróor mbooloo mépp moo leen lëkkale ñu am ak xemmemteef ci sëñ Touba am xemmemteef ci xasiiday sëriñ bi ginnaaw yàlla mu lëkkale nu ba programme yi nga xam ni Sifaa Sudoor ñu ngi koy amal te yëpp jëm ci sëriñ bi mooy siyaare yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci at mu jot di siyaare ki fi nekkal borom Touba di Seex Muhammadul Muntaqa ak ngonti xasiida yi nga xam ne ñu ngi koy faral di amal ci weeru jot muy ngontu durus xasiiday sëriñ bi ak it di daje ci ay daje yoo xam ne yëpp daje sëriñ bi la kon loolu di taw tawféex ju rëy ñuy ñaan sëriñ bi nangul nu liggéey bi te barkeelal nu ko di wax ni ñu gën a feddali sunu laxasaay rek ci liggéey sëñ tubaa ndax liggéey sëñ tubaa moom lépp lu ci waay def démb da nga ko war a xeeb tey tey tey ji daa war a gàccaal sa démb ndax sëñ tubaa moom mbiram noonu rek lay doxe dana wax ni sëñ tubaa amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am te tey sëñ tubaa ju ni day gàccaal démbi sëñ tubaa ndax loolu moom la sëñ Tuubaa doon doxee digganteem ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam na xasiida yoo xam bu ngeen ko xoolee da ngeen di da ngeen di gis ni sëriñ bi xasiida sàngam suñ boroom nanguwu ko fekk ni jamono bu mu koy bind yàlla nangu na ko waaye fi mu tolluwaat bay bindaat xasiida gi jamono boobu daa gën a kawe fa mu toll woon démb bari na ci ay xasiidaam yoo xam ne da ko bind ñaari yoon lu mel ni wakkaan xaqan alay naa na surmamin bokk na ci xam ni day tegtale ni am na ak soppi ci biir xasiida gi ndax yéen a ngi cay gis lii yi nga gis si lii Euh, fekk loolu day tegtale rek dara ji jëm toll tey wuute nag dara ji jëm toll woon démb kon loolu day tegtale ni maanaam nun taalibe it war noo bàyyi xel lu mel noonu sun tay ju nekk di gàccal suñ démb tey luñ gën a farlu ci liggéey sëriñ bi it du doy ndax sëriñ Touba daa farlu woon ci liggéeyal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni daa jëloon waxtoom yëpp jagleel ko yonante bi salaatu sitta yi matxi sitta taatihi batta mahati shay kon li mu tegtale mooy daa jëloon waxtoom yëpp jagleel ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam daal ni diirub jamono du am benn activité bu du liggéeyal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam antal karimu annal xadimu dëhëran mu fii ka sanaay dëhëran mu nag doonu loo xam ni liggéey bu am retraite la doonu loo xam ne liggéey bu amum noflaay la waaye liggéey boo xam ne day sax ba faww la kon nag nun itam nan jéem a euh, roy rek jëmmi sëriñ bi ci fi mu tegoon tànkam donte sëñ tubaa doonul kun mën a jot waaye sëriñ Saalihu sun sang ba daan wax ni kun munta daba am waaye kun munta roy amut te roy nit ku baax dana tax a raw sag maas tey jii nii ñuy dajee ngir jëmmi sëriñ bi am lu nu lëkkale mooy daayira Shifaa dóor nga xam ni léppam sëñ tubaala am na ñuy dajee noonu ngir àdduna am na ñoo xam ni li ñuy dajale muy at mu jot ñaari junni ak ñeenti téeméer bu dee góor a bu dee jigéen a junni ak ñaar téeméer am na ñuy joxe lu ëpp loola ca loola tey loola duñ ci am payuk adduna duñ am payuk alaxira te fitna képp la leen jure adduna ak ndax nit ki bu liggéeyee alalam ba mu lew fépp fu mu ko dugal ëllëg suñu borom daana ko ko laaj su ma la tus àlluna yow mi isin ani nahim alxuraan ko wax nee bépp dërëm bu ngeen am ci adduna suñu borom dana leen régler fifteen par fifteen ba loola mat ginnaaw loolu dana régler waat loola fan ngeen delloowaat kon de tegtale ni képp ku am taw féexi di jël sa alal di ko def ci sëriñ bi nga xam ne leer na la liggéey sëñ tubaa bi sëriñ Mouhamadou Mountakha di liggéey sëñ tubaa yow lu mu gàtt gàtt saw fifteen dem na ci loolu lu ko gën a nekk ak cant tey it adduna amul lu fi gën a kawe liggéey sëñ tubaa adduna amul ko fi gën a kawe ndax liggéey sëñ li mën a jural nit adduna ak alaxira lenn lu ko mën a jural loolu amul amul jaamu yàlla gu ko man du julli du woor du xaj màkka du génne asak boo gisee maam Cheikh Ibrahima Fall raw nekk baabul muridiina daa xante wowutoon dara ci adduna xante woowut mën a julli te kenn dàqu ko xante wut man a woor te kenn dàqu ko xante wut génn asak wala dem màkk waaye benn yitte képp moom la wiise ci addunaam it mooy xidmatu anil xuyoo bi ashabat wala istiqaamatan wasafan wahabat mooy liggéey sëñ tubaa rek moomu sa nekk yitteem bëgg sëñ tubaa te di ko liggéeyal naaw yàlla maqaama même am digganteem ak boroomam maqaama même am muy garaat gu mag muy baabul muridiina loolu la ko may mooy nangoo liggéey sëñ tubaa kon liggéey sëñ tubaa gisul lu ko féete kaw amul it lu ko féete kaw loo xam ni boo koy liggéeyal yow yàlla dalay sippi say bàkkaar yow boo dëngoon yàlla dalay jubal yow boo faatoo saw turu fay loolu nit mun ko am ci am woor nit mun ko am ci liggéey Sëñ Tuubaa képp ci la ko nit mën a loo koo xam ni boo koy liggéeyal yow say aajo dara du ci taxaw yow yàlla day faj sa aajo te yitte joo am ca sansa day daal di faju loolu nit mënu ko am ci julli nit julli na baraw julli kaat tey mun ta mënut a faj benn yitte ci jëmmam mënut ta faj benn yitte ci ak njabootam mun a faj benn yitte ci ay mbokkam waaye kenn ku mos a wax ni damay liggéey sañ tubaa sama jenn aajo di tag wala ji may songu jenn yitte te yitte jooju faju doo nopp mos koo dégg bët mos see tege ndax Sëñ Tuubaa moo ñaan yàlla loolu te yàlla may na ko waq daamoo fii xidmatin wa xablahu maaraamoo bi ci dool mooy kenn kuy liggéey sëñ Tuubaa it ëllëg du bokk ca way texeña du am nit mën naa julli dem sawara ndax boo demee sawara da nga fay fekk ñoo xam ne ay jullikat lan doonoon dawul nopp lu bëccëg dawul nopp lu guddi foo leen fekk ñi ngi sujjóot ak di rukon ak di sëlmal waaye boo demee sawar dana faa fees dal alquran mi ngi nuy wax ni fa waylun lil musallina allazina hum an salatihim saahun ñooñe doonul woon ñu dawul julli waaye ay jullikat lan kenn dëqu leen a julli seen bëccëg yëpp dañ ko yendoo julli seen guddi yëpp dañ ko fanaanee julli waaye boo demee sawara ña fa fees dall ni fa gadd la leen ko yóbbee nag mooy loola dan daan julli te julli ga yàlla tawut waaye kenn koy laaj ni ko yow looy def ci barab bii mu ne la daa doon liggéey sëñ Tuubaa du am ñay liggéey sëñ Tuubaa dañoo am ay barab yu ne nekk a ci àjjana yi gàcc àjjana yi gàcc nag am na waaye ñay liggéey sëñ Tuubaa ñoom du nekk ci àjjana yi gàcc àjjana yi gën a kawe fa la leen sëñ Tuubaa waajalal yoo xam ne foofu la ne tàbbi na la siina saarahon fii xidma fa lahumu diyaaru wasal ajjana yooyee nag ñooy liggéey sëñ tubaa képp a fay tabbi sëñ tubaa néewut jullikat yaa fay dugg sëñ tubaa néewut woorkat yaa dugg sëñ tubaa néewut ajkati màkk yaa fay dugg waaye ñi may sax ci di ma liggéeyal ñooña ñooy tabbi ca ajjana yooyee kon nag ku am taw féex yi gis foo mën a liggéeyal sëñ tubaa war ngaa sant yàlla baax te adduna kenn du ko jot te noonu li nuy dàq danu jot muy faatu at doomu aadama nag daa nekk ci diggante adduna ak faatu di dàq adduna dee di ko de dàq te moom li muy dàq ko jot te dee koy dàq dana ko jot نقول إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم القيب والسهادة كون نون دي ليرنا نون نانين دانان جوت تا ادنا سيني داق نون ليرنا نون ادنا دون كو دون كو جوت ناخ فلا تخرنكم الحياه الدنيا ولا يخرنكم بالله الخرور كون ليرنا نون نانين ادنا دون كو جوت تا دي دانان جوت كون لي ام سولا موي بلا وقت ووي اكس موي سا سوس nga xamne du jass muk كل ناس سايقه الموت كل من عليها فان كل زين حالك الى وجه نكو الى تجهون كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وزن أنه الفراخ والتفت الساق بالساق إلا ربي يمسن المساق لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أينما تكونوا يدركم الموت wala kun fi buróojin mu sayada nan ko bàyyi xel xam ni loolu ci kanam la nekk te du jaas li am solo nag mooy nan teel a sax ci di liggéey sëñ tubaa xam ni liggéey sëñ tubaa rek mooy li am solo tey ko gis bara boo ko mën a liggéey le lépp lu la mën a gàllankoor ba doo dem xamal ni saytaane képp la ndax nit heure bu jógee jëm ci lu baax rawatina lu jëm ci mbirum sëñ Tuubaa saytaane moom day takk ndiggam bëgg a gàllankoor doomu aadama ba du dem alxuraan moo nu ko nettali a saytaan yahidukumul faqra wa yaamurukum bil fahsaa'i fi ne bari na ñoo xam ne kër Cheikh Abdoul Ahad gi li mu jege jege daay recevoir su dóor yi seen liggéey ni mu selleeg ni mu rafeteeg ni mu am na ñoo xam ni nanguwuñ cee bokk daña ngay bokk ci loo xam ne bokkoon ci lii moo ko gën am na ñoo xam ne bokk nañ ci waaye pour ñu teew daayira yombu leen pour ñu teewal daayira yombu leen pour ñu ñu ñuy participer lenn ci daayira Chifa Soudour yomb leen te loola la leen ko yóbbee mooy saytaane képp moo leen gàllankoor ndax dafa bañ ñu am ngërëmul yàlla am njëgal suñu borom ndax yàlla moom boo joxee jëm ci moom da la jural njëgal ak yërmande wallahu yahidukum maxfiratan min wa faddan wallahu waasiun alim saytaane nag lu ñaaw ak lu sib képp ca lay orienté doomu kon nag li mu tegtale mooy luñ mën a dégg ci daayira bi lépp luñ ci mën a gis nan gumba taxlu ndax dañ wax ni nit ëlëk yomal xiyam lamay rawé moromam bam koy def ma nga yor ay bëtam yor ay tànkam yor ay loxoom niko xullu niko xullu diko xol wala niko xujju diko xol waye li am solo moy kep ku bëgga dem niko Cheikh Abdoul Ahad waxe won